mbooloo mi tedd mi bàyyi koo kokki si njiitalub Cheikh Fallou Lo yal ko yàlla wattu ak ñim àndal mbooloo mi tedd mi fi teewal nguur gi si njiitalub Cheikh Moustapha Ndiaye kilifa yuy tedd yi jiite daara yi ak mbootaayu jàngale mi sang yuy tedd yi si ay borom mi xam-xam ak i imaam ak i wootekat mbooloo mi tedd mi fi teewal seeni réew ci wàllum diplomatie mbooloo mi tedd mi fi teewal mbootaayu lislaam ak kër diine yi fii ci Sénégal suñu waajur yi tedd yi a mbooloo mu tedd mi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw loolu bokk na ci li nga xam ne borom xel yi duñ ci wuute mooy naka yarin bu rafet mooy cosaanu ndëgal laayu jëm kanam bu matale waaye li doy mooy ñi ëpp ci réew dañuy seet yarin wu rafet woowu fu mu nekkul te bokk na ci liñ seetlu naka réew yu ëpp ñàkk nañ jëm kanam bu matale googu te dara waralu ko lu dul liñ wan ginnaaw tëralinu Qur'an si wàllum ya ba tax na da gis am dëkk bu jëm kanam lool si way xarale yu bees yi deltu ginnaaw lool si diine ak si jikko nga gis meneen réew mu deltu ginnaaw lool si way xarale yu bees yi raw yi moroomam si diine ak si jikko nga gis meneen réew mu leen ñetteel réew moo xam ni jëmul kanam si way xarale yu bees yi jëmul kanam si diine ak si jikko bii moo yées si ñett ñi donte ne ñett yëpp ñu ngi si njumte si tëralinu Qur'an si wàllum ya yéen mbooloo mu tedd mi naka tëralin bu wér si wàllum ya mooy tëralin bi nga xam ne mooy yem nit ki si mbooleem wàll yi jëmale ko si mu defal addunaam ak àllaaxiraam bañ a bàyyi benn si ñoom ñaar comme ni ko yenn saxaaba yi di waxee naan liggéeyalal sa adduna ba mel ni fii ngay sax te nga liggéeyal sa àllaaxira ba mel ni dangay faat suba te tëralin bu wel boobu duñ ko fekk fu dul si alquraanu karim ak ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te képp ku topp seen jàngale ñoom ñaar di nga am tëralinu di nga am tëralinu bu matta matale lamb mboolem wàllu yi nit soxla te képp ku topp tëralinu quran si wàllu mi yar dina yar maas yu yëkkati seen xeet ñi jëmale leen si kanam si diine ak si jikko ak si xam-xam te ñett yii muy diine ak jikko ak xam-xam du daje si benn xeet lu dul ni xeet woowu dina dina kaw yeneen xeet loolu moo waraloon ñu tànn temu daje bii nii di yarinu Qur'an mooy cosaanu jëm kanamu aw xeet yéen mbooloo mu tedd mi tomb yi alquran di waxtaanee mi ngi ko si juróomi xaaj ngir ñu dëggal jëm kanam jëm kanam bu matale googu faw ñu yar xeet wi si jëfandikoo juróomi xaaj yooyu te mooy yi ci mel ni yii nii di ñëw bi ci njëkk mooy wéetal yàlla ñaareel bi mooy jaamu yàlla ñetteel bi di jikko yi ak jëflante ñeenteel bi mooy adduna bi ak li ci aju ci ay kemtaan ak i njëriñ diggante asamaan ak suuf juróomeel bi mooy xibaar yi ñu alxuraan andil xaaj bu njëkk bi mooy li aju si wàllu wéetal yàlla te jëfe ko mi ngi amee xaaj bu njëkk bi mooy li aju si wàllum wéetal yàlla mooy xaaj bi ëpp solo ci xaaj yi mooy xaaj bi nga xam ni moo jagoo xol xol bi nga xam ni mooy digal di tere mbooleem cëri doomu aadama yi yonent diwi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi wax naan am na wennum suuf mu nekk si yaramu doomu aadama su baaxee yaram bi yëpp baax waaye it su yàqoo yaram bi yëpp yàqu te moom mooy xol te jëfe laaye wéetal yàlla yi mi ngi amee si fas li ñu yàlla suñu borom akum yeneen taam digal nañ ko fas te sori lépp lu ñu yàlla akum yeneen taam digal ñu bañ koo fas si loolu si la xol di muccee si feebaru bokkaale ak sos si diini ñi ñaareelu xaaj mooy li aju si wàllum jaamu yàlla te ñu jëfe ko mi ngi aju si jëfe xaaj bu njëkk bi mooy jeexitalu wéetal yàlla bi feeñ si cër yi si misaal ñuy taxawal julli ngir fas biñ fas ni yàlla suñ borom moo ñu ko digal ñuy sëri gisaane ak naan sàngara ak mbooleem yu xaraam yi ngir fas biñ fas ni yàlla suñ borom moo ko xaraamal si ñun yàlla suñ borom mu ngi wax si téeréem bu tedd bi naan digaluma leen lu dul ñu jàmm yàlla la sellalal ko diine ji te bañ a jeng tey taxawal julli di joxe azaka loole mooy diine ji jub ji ñetteelu xaaj bi mooy li aju si jikko yi ak jëflante te jëfe ko mu ngi amee si nga jikkowoo jikko yi rafet tey jëflanteek mbooleem mbindeefu yàlla yi jëflante yi rafet moo xam si nit wala si bàyyima wala si gàncax wala sax lu dundul comme yàlla comme yonentaam nim ñu ko digalee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi wax naan yónni wuñ ma lu dul ngir ma mottali jikko yu tedd yi ñeenteelu xaaj bi mooy li aju si wàllum àdduna bi te jëfe ko mu ngi amee si ñu seetantal bind yi ciy wax jëfandikoo ko si wàll yu bëri bokk na si ci ëpp solo bi ci njëkk mooy xam màggaayu yàlla suñ boroom ñaareel bi mooy ballulu si xam-xam yi aju si mbindeefu yàlla yi si àdduna bi ñetteel bi mooy dundal suuf si si ay jumtukaay ak jëfandikukaay ak yeneen yu lu yooyu xaaj bu mujj bi mooy li aju si xibaar yi ñu alxuraan àndil te jëfe ko mi ngi xamee suñu dégg ay ngir xam xibaaru xeet yi ñu jiitu woon ngir mën see jëriñu te mën see waa suñ jëfandikoowee xaaj yi yëpp yar si suñuy njaboot si la ñuy nekkee ñoo xamante ne nii jëfandikoo nañ tëralinu Qur'an si wàllum yar te si loolu si lañuy mën a amee ponk yi jëm kanam yu matale alquran mu ngi ñuy xamal li ëpp solo si ponk yi jëm kanam yu matale si xissa ibrahima alayhi salaam bi mu dëkkalee njabootam ga màkka te fekk fa dara si ndëgal laa yu dund muy ñaan boroomam li ëpp solo si ndëgal laa dund yàlla suñ boroom mu ngi nettali naan fàttalikul yow yenent bi bi ibrahima di wax naan yow yàlla sama boroom maa ngi lay ñaan nga def bërëb bii nii di màkka mu nekk bërëb bu dal te nga sëril ma man ak samay njaboot ñuy jaamu xërëm muy waxaat ba tey naan yow suñu boroom man mii de dëkkal naa sama njaboot si xul woo xam ne amul dara lu ñu fa mën a bayee si sa wetu néeg bu tedd bii nii di kaaba gi yow sama borom ngir ñuy taxawal julli kon yow sama borom maa ngi lay ñaan nga def si xolu nit ñi mu jëm si ñoom te nga wërsëgal leen ay meññanti ngir ñu bokk si ñuy sant si aaya yi nii si lañu Qur'an di jàngalee li ëpp solo si ponk yi jëm kanam mooy li Ibrahima tudd si ñaanami bi si njëkk mooy dal looloo tax Ibrahima wax naan yow sama borom maa ngi lay ñaan nga def bërëb bii nii di Makka mu nekk bërëb bu dal ñaareel bi mooy wéetal yàlla lii moo tax Ibrahima wax naan te nga sëril ma man ak samay njaboot ñuy jaamu xërëm ñetteel bi mooy wéetal mooy jaamu yàlla lii moo tax Ibrahima wax naan yow sama borom ngir ñu taxawal julli ñeenteel bi mooy mbooloo lii moo tax mu ne da def si xolu nit ñi ñu jëm si ñoom juróomeel bi mooy yaxan lii moo tax mu ne te nga wërsëgal leen ay meññeent quran mu ngi mu xamal ci saar yusuf ne naka xam-xam ak kóolute ab bànqaas la si yaxan yàlla suñu borom mu ngi nettali si quran naan bi yusuf di wax ak buur bi naan ko yow buur bi féetale ma si wàllu mbay ndax man mii de ku wóor laa te xam laa mu ne kon suñ bëggee jëm kanam dëgg nañ ngoy si quran ak ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te koy jëriñoo si suñ mbooleem wàllu dund yi te bañ leen a teqale suñ ko deful suñ ko deful ab tabax tànge dinañu dab fii si àdduna ak mbugal yawmal qiyaam comme quran nim ñu ko waxee ci saaru baqara taarix mu ngi ñuy xamal ni naka jëm kanamu xeet wi mi ngi aju si ngoy si quran ak ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme jullit ñu njëkk ñi niñ ko defee woon ndaxte jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak xalifam yu jub ba ci jamono Omar ibnu Abdul Aziz wute nañ lool ak suñ jamono tey gii nii te dara waralu ko lu dul ni ñoom dañoo ngoyoon si Qur'an ak ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñun tey yàlla suñ borom mu ngi wax si alquran naan képp ku dëddu sama téere bii nii di alquran dinga dund dund gu méttee métti fii ci àdduna ñu ngi woo réewum lislaam bi yépp rawatina askanu Sénégal suñu ngoy si Qur'an ak sunna yenent bi sallallahu alayhi wa sallam yar maas si tëralinu Qur'an si wàllum yar si loolu si lañuy mën a dëggalee jëm kanam bu matale ngir jeexal maa ngi jëmale kàddu cant si turu daara Ahmad Sakhir Lo jëmale ko si askanu senegaal di si jiital njiiti réew mi di président Macky Sall yal na ko yàlla wattu ak mbooleem ñi koy jàppale si nguur gi comme noonu lañ leen di sante si wuy si bu rafet bi ngeen wuy si suñu wootee ak déglu bu rafet bi ngeen déglu suñuy kàddu di leen masawu coono ak tàngaay bi di leen ñaanal delloog jàmm yal na leen yàlla fay yiw wasalaamu aleykum wa wa barakaatu.